salaamaaleykum mbokki taalib yëpp mbokki jullit yëpp fii ngeen di gis nag boo ngeen ko xoolee door leen ko xàmme ndax man woon nii fii mooy bërëbu soxna Aminta Lo maanaam wayjuru Cheikh Mamadou Moustapha Kabir ak Serigne Mamadou Amin Baara kii nag ngeen di gis mooy seen mbay bërëb moom ngeen fi daan fekk ñi fi daan ñëw buñ fi ñëwaatee boo moytul dinañ jaaxle ndax dañ naan lii kat bàyyiwuñ ko ni waaye nag euh, bëgg-bëggu sëriñ bi ak pas-pas murit yi ànd ko kilifa yépp moo def suñu borom indi tawfeex gi fii maanaam bërëb bi soppeeku lool waaw maanaam am na lu ñu ci mën a wax nag loo xamante ni daanaka dañ naan waaw mooy loolu incha allah ndax lépp dee su ko xam wax ko waaye lii moom lii rek la war a demee lii rek la war a demee mbay suñ mbay yan kàddu cant ngay jëmale ci mbokki taalibe yi ak mbokki jullit. asalaamaaleykum mbokki taalibe di sant siyaare sëriñ Muntaxa suñu borom yagal fi lool sëriñ Amadou makhtar suñu borom yagal fi lool suñu sow di guy mbi ni suñu borom yagal fi lool suñu xaadim mi taxaw liggéey bi seen borom yagal ko fi yagal ay taalibam yagal fi lool barab bi nak tepp ci fi dug ni jëkkal la e mourou li soxlaam di jëf ci yoonu murit tey li li ñu ko faye tey jii mhm. am na bis soo bi soo ko fa def ci ñax mhm. te yaa euh, teew dem ci bi ñu jëf ci ñu jëm moom allah dañu allah xarit bi ñu jëm mhm. danga ko am ci nekk ci àllaxara daa am ndigal li dana am ndigal ndigal le di ñaan njaboot Serigne jëpp góor ak jigéen magal ndaw ñëpp di ñaan di ñaan si amul waxtaan di ñaan si mun taqaa suñu borom yàggal bi di ñaan suñu sufa mu suñ baax suñu borom yàggal si lool di ñaanal seen kanam bépp gëm suñ ay sérieux dañ ñaanal ñu yàgg ci loolu wér amiin Mbàkke bu soobee yàlla lépp dina baax soobee Cheikh Khadim ñu nag man amul soxla yi laa xam hmm. moom laa moom laa xam ñu ñaan sama sëriñ monsieur Abdoulaye bi sëriñ Seex Gaynde bi sëriñ Seex Daaru Rahman mu yàgg ci loolu ci wér. amiin barke borom Tuubaa barke Seex Xaadim. jërëjëf Mbaye jërëjëf li li woo bari ñu képp ku fi ñëw te xol dana set. incha allah jërëjëf jërëjëf Mbaye xam naa ne xol bee fees ko dégg xam ne ñaari ñaari yéen la kon suñu borom nangu na ñaar ñi barke borom Tuubaa ci barke bërëb bi ak ñu tëj ci bërëb bi ak barke kilifa yëpp ñu sànni ci ñëpp di ci gërëm ñëpp wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf